simile feebar baa ngay rey ba léegi dee bos fa bi ne corona ah, lu tolloog juróom ci ay doomu aadama day la rey ñaari fan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ah maa la ko wax te la tey jàpp kon juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay la yi ci Dakar la ñu dëkk juróomeel ba dee ca Touba la dëkk yéene kaa ngi ne juróom-ñeent ci ay doomu aadama kon ñoo dee ci benn semaine la ilaha illallah Sénégal dee léegi fukk ak juróom-ñeent ci ay doomu aadama ñoo ñàkk seenu bakkan tribune yéene kaa ne juróom benn ci ay doomu ñoo dee ci ñaari fan yéeni kaay yi dee mi jaagi ne te gis nga service da kay bu urgence hôpital Fann ñeen fukk ak juróom ñaar ci ay doomu aadama ñoo xam ne kon laalee nañu dee nee nañu may benn médecin ñetti infirmière benn waajuy liggéey ca mbali ma technicien de surface la ak ñaari malade waaw wàlla nañ leen dee libération yi ne kaay ne covid 19 de feebar bi kay ah, fi mu nii nag ma ngay jayax-jayax yi feebar baa ngi def lu mën naa la wax ndax lu juróom-ñett de ñu bees ñu am feebar ba te ñaari fan waaw junni ak ñeent fukk wax ni lé ay malade yu bees ñu leen di faj téeméer ak juróom fukk juróom-ñett de junni ak ñeent fukk ci ñu feebar ñu leen di faj benn waa joo xam ne ca Dakar la jógee moo wàlla waa fan ak dante de wàlla nañ leen sur quotidien alerte luy jot nag jot na ginnaaw de juróom-ñaar ci ay kaayu garaaw Sénégal nag fi nekk ni lé passé na kon junni ci ay patient yoo xam jàppale nañ leen enquête yéene kaay ne en tout cas dee gi de ni ñuy jugee kaw ni doy na waar doy na waar docteur Aline Badara Diop waaw nee te xam nga lan moo ci ragal loo mooy xale yi nga xam ne kon ñu ngi ciy dee looloo tiitlu nag direct news de en tout cas kër kilifa diine de ñooy violé état d'urgence bi laa la wax maar di taali waaw waaw dama ne la ñooy génnee nit ñi déconfinement forcé le foyer religieux di def nag laa la wax xam nga am na kër yoo xam ne de danañ ne lan moo téléphone portable lu xew Sud Quotidien ne li wóor ba wóor en tout cas la xew ca Médina Gounass ke atalew na Niassène ca Kaolack waaw day féewale nit ñi de boolewul nit ñi de Cheikh Ahmed Tidiane Khalifa Niass mooy xalif général lew na Niassène ci lay si ko yéene waaw nee na fam nekkoon la nekk ba léegi ni la dee ndaxte Niassène bi nee kenn mënuñoo tere ci julli ci jumaa laa la wax fi mu nekk ni la dee jënd naa samay càngaay ngir dem ca kaso ba déet waay Niass ah kay bare na ñu def nag lu ni mel julli ji juma par force <laughs> direct news de waaye xoolal ma commerçant li ñu mënul nangu de mooy seeni magasin ñu tëj ko ba nuppi deew Discover ak Orca waaw ñu ngi ubbi seeni magasin lii luy ndee en tout cas président Macky Sall de suba lay wax tribune yéene kaay ne njàng meeg tamit de le deux juin danañu ubbi waat kon classe ya waaye ñi nga xam nag maanaam ñoom ñooy acteurs yi ak sénégalais yi dogal boobee d'accord uñu ca laa la wax xam ne lañ ci gis kon maar détaali yow gouvernement boo xam ne kon mënoo jëndal yenn ci ay école de jël xale yóbbu leen ci école ba xarul la musiba mbaa ba kon mën naa dikk sauver ay bakkan daal moo gën sauver année blanche foopi lii sax daa yeluwul maanaa quoi yow yaa ngi jël ay punkalu magum jëmm di ay adulte ne leen restez chez seeni kër ba nuppi na jël ay tuut tànk de ay xale yu ndaw di leen yóbbu kon ci école ba lii luy moo jaax jaaxal ñëpp termine yéene kaay ne <laughs> en tout cas mairie bu Hann Bel-Air de Babacar Mbengue waaw lu tolloon cent soixante quinze millions la dimbalee kon askanam woowee Grand Place de daaw da ñaa di mairie Rufisque de moom tamit dimbali na hôpital Youssou Mbargane jafe-jafe yëpp daanaka faj nañ ko de à quatre-vingt-dix pour cent Pape tamit de ci direct news waaw daal dina yi wut lu tolloo juróomi junni ci ay masque dimbalee ko waa ngee xoox waaye ngee xoox ko le soleil six communes yéen waaw lu tolloo junni ak téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn ci ay kër yoo xam ne de ménage ndimbala nguur gi de yegg na ca ñun ma ne la commune yéen googee waaw bokk na ci commune yi nga xam ne yu njëkk yu pare seen wàllum séddale très bien dama ne la maire ba góor gi siis de yemu ca ndaxte famille yi nga xam ne kon dañu ne nguur gi du leen dimbali bokk ci critères yi lée góor gi siis da leen a dimbali très bien fra France dégage ci libération yéen kaay waaw nee na génnee leen Abdou Karim Gueye xurum xaax te ubbi nekke laa la wax réew mi ko yéene état d'urgence feeg yorinu covid ga ba ca wàllum diaspora waaw ngoone ndooy dee am na loo xam ne kon d'accordu ca dee dëgg la li sénégalais d'accordul kay mooy Père Diome ba dee ubil lay sa ko yéene kay Toussaint Manga ne dama ne boole woon nañ ca Père laa la wax bindoon nañ ko mu leer Toussaint Manga ci l'observateur ne téeméer ak juróom ñaari million laa la wax la préparé woon ngir wàllum Père neexal gaa bokk ci di reye nawe beeg liggéeyu tool yeeg béykat bi lu mu doon jàmbaar jàmbaar bu ko neexee tiit nag bu ko neexee tiit de tribune yéene kaay ne ginnaaw sayer sek de waaw hélas ña armateur waaw daal dinay seetal nag de ministre Alioune Ndoye nee na Alioune Ndoye si ñëwul benn licence de pêche nag laa la wax hélas ñaa ne maa la wax lée ñoom sayer sek nag dañoo jàppee chinois yi ne ay étranger te laata chinois doon fi ñëw daan nañu toog ñaari semaine yoo xam ne benn conteneur du fi wàcc laa la wax hélas ñaa ne waaye baax grand place de aide à la presse de xaalis ba waa CDEPS ah, nee nañu xaalis boobee dañu koo détourné ar d'Italie la ilaha illallah waa CDEPS ci enquête yéene kaay ne dama ne un milliard quatre cent aide à la presse xam nga ñaata la ñu séddale deux cent vingt cinq millions maanaam seize sur cent ana xaalis baax patron de presse yi ne danu ne waay waay ministre bi de la communication na wax ku nekk ñaata nga am le quotidien yéene kaay ne contrat Sénélec ak akil la ah lëfa lëfa cinq dama ne la séddoo bukki la bii <laughs> walaay def leen lu leen neex loo leen seddoo bukki bukki bukki bukki bukki bukki bukki bukki bukki gayndee ngi ñëw te pétrole bi ken kenn nu koo fàtte parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fi tere bismillah buur du ragal de dée dée dama leen la njiit du saxi buur du saxi barke rasul lay termine yéene kaa ne président Macky Sall de daw na deuxième de il a cédé à la pression mar di taali waaw waaw parce na jàppal na bis ni ki tey kon ji day couvre-feu bi léegi dootul nekkati vingt heures vingt et une heures la neuf heures ci guddi de ba cinq heures matin waaw heure liggéey tamit de léegi nag neuf kon ci suba la ba quatre ca ngoon di seize heures yi tamit Macky Sall nee dañ leen di ubbi lundi ba samedi laa la wax dimanche lañ leen di tëj laay laay la la jumaay jàkkee église waaw Macky Sall nee na leen ubbi yéy waay samba laay la Aly Ngouille ci enquête yéene kaay ne waaw jàkkee jumaay dee luñ leen yéen i kaay gi ne léegi nag la cohabitation parce que Macky Sall de ah na léegi nag nañ leen jàng dëkkandoo ak doomu jàngoro ji le l'observateur ne Pape Moussa Thior de docteur Ba lam leen waxoon de dikk na dëgg la enquête yéen i kaay ne ko may ma ma yeggali may ma ma yeggali président Macky Sall nee na gis nga doomu jàngoro ji le waaw mën naa nekk ci réew mi ma weeru août i de nooyal na ko ma la mesure yo na nooy tribune yéen i nooyul kay Macky ki kay daa sax daa daw waaw il a cédé à la pression direct news de gouvernement Sénégal de bu doon xeex la waaw dañ naan wàcce na Macky Sall wàcce na drapeau ba bese na gardam laa la wax waaye nag luy jot jot na ginnaaw de tous les signaux au rouge dama ne la nguur gi day mbaa du kër kilifa diine kon dañ koo delloo ginnaaw Sénégal bi nga xam ne bokk na ci fukki réew yi nga xam ne nag maanaam kon moom la jàngoro ji gën a dugg de ci diwaanu Afrique gi la waaw Sénégal a de juróom-benn fukk yëpp ñu faj leen ba wér waaye gis nga Sénégal ci ñaari semaine ah dellu ginnaaw goo xam ne kon maara di taali 30 pour ci wàllum géri kon lañ am léegi lu tolloo junni ci ay doomu aadama wala mu ëpp ko dee ñu leen di faj te gis nga président Macky Sall waaw julli ko di tegi dee ñu ngi koy xaar na ci grande mosquée bu Ndakaaru ñemeewu ko maa la wax li critique yéene kaay ne ubbi waa jàkkee ak jumaa yi ah monseigneur André Gueye day la ak yenn këri diine yoo xam ne te rawatina julit yo waaw dañoo te xàmmewuñ cànc ak joor ci jamonoy weeru koor gi lée lii tax nag ba Macky Sall de la mu diyewoon nag di xeex ak wàllu corona gi lée am na lum ca baax bàyyi na mu sedd de dama ne la Macky Sall kon ubbiwaat na jumaa ak jàkka yi de daal di ubbiwaat marché yi lée yow ci jamono joo xam ne fi mu nekk nii doomu jàngoro ji ah mi ngi yaataa yumbee di dox doxam nice good fine eh maa la ko waaye église bi de ah nee ba léegi ne la lu jëm nag ci wàllu ndaje église catholique bi nee nañu d'accord ñu ci kon benn yoon dëgg la box bi dine Macky Sall de waaw daal dinay jox nag ab autorisation doomu jàngoro ji ne ko doxal sa dox ba kenn laal la corona doxal sa dox dégg nga de libération yi ne ne état d'urgence la de waaw Macky Sall kay ubbi na lépp Macky ubbi na lépp Abdoul Mbaye ah na léegi kay leen nañu dese nag tàllal suñuy loxo subhaanahu wa di borom bi lée yàlla daal di koy ñaan rek Macky Sall moo doon wax ne l'heure est grave Abdoulaye plus grave mar d' itali mar d' itali waaw waaw léegi kay xam nga war a jàng nañ leen jàng nag di wàllante nañ leen jàng di wàllante ku feebar wàll sa morom mar d' itali waaw waaw parce que nag yow ay france ak yooyee la ñuy roy te gis nga ñun duñ france france du ñin laa la wax te france lu ëpp ñaari weeru yàlla daal dina koy fat nag ay doomam angleterre ngi ni lée benn fan ci weeru juin la ñuy ubbi Ablaye ne waaye nag Léopold Valéry waxoon loolay dëgg nguur daal bu amee doole lool daal du ñuy dëgg il nous écrase. S'il les faible, nous périssons waaye daal boo bëggee dégg dëgg waaw Macky Sall daa saxi buur buy daw la daw na de il a cédé à la pression de le quotidien yéene kaay ne Macky Sall kay masque ba mu takkoon sax sànni na ko waaye clergé catholique bi dee d'accordul dee ci dogal bi nga xam ne kon moom le président Macky Sall jël Aly Ngouille Ndiaye ci laas waaw nee na dem nga dikk gi nekk ci région yi ah, ah, ah, ah. moom dindi ko de dañ koy tere ba léegi ni lee Dakar Times ne en tout rek la ñu jox ay pikiiru calmant les écoles yéene kaay ne Macky Sall kay bi ci boppam kon la weddi waaw waaw mais yow doomu Sénégal yi nekk ca bitim réew barki démb Njaay la ñu dem ca cour suprême ca tribunal ba la ngir ñu indi leen ba bañ Macky Sall démb nee na ne néew yi eh way samba maa la ko wax président ca ndaxte kor marem day ah daal dinay ubbi na jàkka jumaa ya couvre-feu bi nee na vingt et une heures cinq heures du matin na kon marché ya altine ñu tëj ko dimanche Abdoul Mbaye ne déggoo leen ma di léegi kay leen na fi ñaan yàlla mu làmbatu gi nga xam ne kon moom la waa kër Macky Sall yi nekkee jël suñu banqaas su réew mi di institution yi lée daal di leen tegee nee dañ leen a quarantaine dëgg la libération yi nekkaa ne waa kër docteur de waaw tooñ nañ leen ba muy ñaari yoon ñu leen di wàll feebar bi fii sur tamit ñu leen di taañaañal di leen saaga di leen dig ay dóor di leen menacé xoolal ca Touba Kouta gële benn équipe ay docteur waaw ñoo ñëwoon di def ay prélèvement ci que test yi jaarul yoon syndicat wu médecins yi nee nañ dañoo jot benn audio ñu ne leen ku fi ñëw di def ay test te ay mbol dee la fii jëlee ay yat ginnaaw Thiès Dakar ak Touba Médina Gounass waaw hôpital bu Tambacounda de wàll nañ leen démb de ca jamono jooje critique yéene kaay nee na jàngoro jee en tout muy màggee mardi taali jéego bu doy waar démb ak juróom-ñaar ci ay kaay bees 177 nouveaux cas la ilaha illallah évidence yéene kaay ne xale ci mbedd mi waaw moom nday sali té ni ki dee ñetti téeméer ak juróom-ñeen fukk ci xale génne waat na xew-xew wa kon point ëllëwoon e léeg si ko yéene kaay ne ginnaaw abib si ah front de résistance ba dé opposition ba waaw daal dinañuy génn nag ci comité de suivi ba xaalis bi président Macky Sall kon dajale fond force covid 19 ji waa front de résistance ba nee nañ bàyyi nañ mu neex nag nga toog fa sa parti wala sa xalaat waaye front ba daal génn Macky Sall waxam ji lee daa waroo de saful yàpp saful jën te Macky Sall yi keneen ki na daa sax daw na de am na keneen ku ne nag hôpital yi fees dell la nar maar di tali am na keneen ku ne fa muy mujjee dana mi talool am na ku ne yaakaar gi nag septembre la <laughs> lay démb la waa réew mi jaaxle waaye nag xoolal ak lu réew mi jaaxle jaaxle jaaxle jaaxle jaaxle jaaxle jaaxle Macky ak waa këram a gën a jaaxle ndax pétrole bi maa la ko wax parce que suul gaz du ko tere <laughs> fi mu nekk dina ñëpp a jaaxle de ñëpp a tiit Babacar Justin Ndiaye ci direct news ak tribune yéene kaay waaw nee na nguur ga tey dellu na ginnaaw te jamono joo xam ne nag yow feebar bi de ma ngay avancé la ilaha illallah sur sa ane xeex ak wàllum coronavirus coo jaay ci Sénégal waaw Macky Sall de daa dégg tànkam waaw corona boobam daa accéléré la ilaha illallah dama ne la Macky Sall kay sukk na jébalu laa la wax Abdoulaye Diouf Sarr ci ko sobli waaw nee na loolee amul Macky Sall sukkul jébalu loolee amu fi il n'y a aucune capitulation uh-huh. waaw te mbir mi nag ñu ngi koy maîtriser ba léegi ni la te dépassé guñu mu jë di Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé kon yemu ca ci tribune yéene kaay waaw nee na dama ne situation ci boppam kon ñu koy maîtriser ministre ba yemu ca parce que Abdoulaye ja ci critique yéene kaay ah nee na bis bu ñu demee nag ba toll foofee nga xam ne kon feebar bi day wàcc maanaam sa pigo waaw mas bi ci boppam kon danga commencé wàcc laa la wax kurbam bi waaw Abdoulaye Diouf Sarr ci libération yéene kaay ah nee na te sax suñuy borom yi xam-xam daal xamal nañu président de la république ne ëpp ko ay xabaar il est le plus renseigné amul benn pression boo xam ni kon maanaam nag dañ koo laaj ci doodam de déedéet loolu amul réew mi ko di yéene en tout cas téeméer ak juróom-ñeent de ci ay cas yi bees waaw moo am de am na nag maanaam juróom-ñeent yoo xam ne de ay cas yi gaaw la ay laay la la ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay doomu aadama yoo xam ne kon faj nañ leen Mohamed Boun Abdallah Dionne de ci la solo yéene kaay waaw nee na dogal yi nga xam ne kon moom la président Macky Sall jël eh, da koo laal nag ci ay analyse yu leer eh, waaw waaw vingt-quatre heures yéene kaay ne Macky Sall mi la de est-ce que danañu génne xeeti guddi gii te tuddee ko chef loolooy laaj wa nag laa la wax loolooy laaj wax Macky Sall laa ne est-ce que danañu génne ci jafe-jafe bi de le secrétaire ne wax waxeetu Macky Sall boobee day waaw lalu ko ci science lalu ko tamit ci kër docteur le virage de Macky nee nii scientifique nii médical te nag gis nga fi ak ñaari semaine jàpp ko ñetti semaine waaw booy boo ñu waaj musiba mbaa ba kumba ni mardi tali waaw waaw yéen kaay groupe fi dërëmi jaagi ne waaye nag liy taaxal nit ñi ah mooy pataaral di noppi koo xam ne moom la docteur Seydi bi la nekkee docteur Bousso ak docteur Xemes Ngom Ndiaye seen noppi ji la jaaxal ñëpp de ne ginnaaw discours président Macky Sall boobee waaw gars yi dalandoo nañ ci kawam la ko xam nga Déthié Fall wurula waaw nee gis nga président moom Macky Sall général la boo xam ne de guerre bi da koo dépassé de mbir mi da koo dépassé de te Touba Gueye waaw Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké yéegee nañu nag maanaam ndigal li nga xam ne moo jógee kon ci jëmu ji tedd ci lee di Serigne Mountakha di nañ leen sol ay masque sëñ bi nee na sol leen masque yi sorante leen sorante leen la distanciation sociale Déthié Fall ci évidence laa nga teg sa ndomba tànk laa la wax assumer vos responsabilités ou démissionner de vos fonctions ilaay la la décéphane général bi ci boppam waaw guerre bi da koo dépassé bu bëgg jël musiba ba kumba bi de ne lu waay xam boo te dooma loolee du fi am moo gërëm yéene kaay ne en tout cas Macky Sall de waaw war nañ ko ndomba de war nañ ko ndomba de docteur Bamba Kane waaw daal dinay joxe xalaatam yi de ci mbas mi de lees ko ay weer ba ñu de yeewaat nañ Sall daal jël na dogal bàyyi askanam wi lee bàyyi tamit doomu jàngoro ji tasaaroo ci biir réew mar bi daaj waaw te kattan jépp la dajale ci ay loxoom de tout le pouvoir mi ngi ci loxoom Macky Sall laa la wax Mamadou Lamine Diallo be gis nga loi bi nga xam ne kon moom lañ ci votel Macky Sall barki dee moo njaay la loi d'habilitation a amatul saas léegi kay nañ leen dellu rek te constitution normal la yéene kaa gi ne Ousmane Sonko tamit day day wax bu onze heures jotee Abdoul Mbaye ci Grand Place waaw nee na Sénégal mooy réew mu njëkk moo xam ne teggi na tànkam daw deuxième ci xeex bi mu doon xeex ak bi dix-neuf ci yamu ci parce que waaye ACT bi waaw nee na xam nga lii lan lay dugal fi mu nekk ni lé mooy yéen askan wi def leen lu leen neex man moom bis ki day sama nga ñu nekku ci ah ah Abdou Mbaye de loolu lay nuru di yéene kaa ngi ne am sat soo sidibé tamit eh waaw d'accord ci dogal yi xam ne moom la président Macky Sall jël parce que am sat soo sidibé waaw nee ko monsieur le président Macky Sall waroo teggi sa tànk benn yoon ala waroo nooyal non parce que condition

waaye politique yi ba ci ulema yi professeur a Faye waaw nee na gis nga saara dogale xam nga kañ lañ ko doon jël bu feebar bi daan wàcc mbaaloo ca caam ah. nee na la ñu liggéeyoon yëpp gaa ñaa ngi koy yàq bi te mi ngi doon def ay effet mi ngi doon def résultat de Thierno Alassane Sall waaw nee na président Macky Sall lenn doo ko ñor de rek mooy nguuram ci lay ak njabootam sa famille rek laaste Mamadou Talla Diagne ministre éducation nationale daal dinay jox ay garantie jàngalekat yi ne Alioune Ndoye ak di géey licence de pêche toll ci juróom fukk ak juróom benn ci ay bato yoo xam ne dañ leen koo dig leen si ko yéene kaay ne ndimbal li de ndimbal li aide alimentaire bi waaw te diwaanu kaw la kay am na ci ay délégué de quartier yoo xam ne de yóbbu nañ leen police ay way jile yéene kaay gi ne ngir sauver nag le soldat Macky Sall waaw xuree si cam te nee na poste premier ministre daa war a dellu si waat ñu defar gouvernement boo xam ne ñëpp a cay ne ba ci opposition bi waaw xuree si cam ne ñu jël Idrissa Seck def ko premier ministre wala Aminata Touré wala Abdoulaye Daouda Diallo wala Cheikh Tidiane Mbaye yéeway Samba ay Ousmane Sonko Malick Gakou Diop ñoom maître Madické Niang dugg ci biir gouvernement bi Eva Marie Coll Seck ñu indiwaat ko santé daal di seetal Karim Wade Khalifa Sall Barthélémy Dias <laughs> mais seddoo bukki mais la xoolal ak loo leen seddoo seddoo seddoo seddoo seddoo seddoo seddoo suñu gouvernement bi muy nguur def opposition bi bu leen fàtte suñu pétrole bi rek parce ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ba nga ci jël door waaw ak sapeur pompier day jàngoro ju dugg leen allahu akbar enquête yéene dama ne la lu dool ak ñaar fukk ci ay docteur di ay médecin la waa kër docteur yooye waaw ña ngay sàkku na ngir ñu jàppale leen dimbali leen protection daal di leen kon aar dëgg la te jamono jooje sénégalais yi de waaw ñoom nag nee nañ leen dund leen ak doomu jàngoro ji lee 24 heures yéene kaa ne dama ne lu dool ñaari junni ci ay doomu adama de léegi na kon am nañ jàngoro jax lu toll ñetti doomu aadama ñàkk nañ seenu bakkan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun tribune yéene kaa ne dama ne la ñettatee ci benn bis vingt quatre heures waaw Sénégal kee léegi lu toll ñaar fukk ak ñaar ci ay doomu aadama ñàkk lu toll fukk ak benn ci ay sapeur pompier jàngoro jo dugg na leen réew mi ko tijee xam ne ay kaa yi gaaw ñaari junni ak téeméer ak juróom ci ay doomu aadama yoo xam ne te léegi nag jàngoro jo daal dina leen dugg te jamono joo enquête yéen kaay waaw nee na ñu Macky Sall li mu wax duñ ko def ay te duñ ko def ëllëg naa la wax ni ki démb ko lañ doon daje ca lycée Limamou Laye de waaye préfet bu géej dalee na tare waaye teewul seen porte parole ba yu nga faal waaw nee na duñu jàngi tey te duñu jàngi ëllëg naa la wax le deux duñu dellu ci classe yi tànka mas mi ne maîtriser wuñ ko dëgg la bos soob li ba tamit de nee ñoom dañuy tëj yi ba léegi ni lay église yi dañ koy bi de mosquée omarienne bi analyse bi day waaw nee nañu nii nga xam ne kon la doomu jàngoro ji kon di màggee day mbas mi ñi ne jumtukaay yi nga xam ne kon moom la jëloon communiqué yi ñu fi génnee woon ba tey ca la yi day waaw xalit fu Omar yéen gi dee Cerno nga xam ne kon la doomu jàngoro ji kon di màggee dee maîtriser guñ ko de ci biir réew mi yëpp déedéet rawatina nag ci Ndakaaru njaay jël joo ba tax na mosquée Omar yéen bi dee jumaa tukulóor yi ci Medina waaw dama la dañ ko Macky Sall waroon na fi école boo bëggee dégg dëgg moom nag ci la ko ubbi yéeway samba jël xale yi ak jàngalekat yi lée daal di ubbi ak gémmiñu bukki wala gémmiñu kay ne bëgg leen daa sànni duñu ko nangu Macky Sall lu tolloo juróom benn téeméeri junni ci ay nit ay élève ak ay jàngalekat ah. la bëgg a sànq dama ne duñu ko def Ousmane Sonko da ci tribune yéene kaay ah. nee na lajj tey lajj bu doon stade football ñu ne ñetti ni nekkuñ fa fiasco total Sall daa saxi te buur du saxi Macky dama ne daa saxi daa daw ay responsabilité am la daw Macky Sall nekk na ay ndomba tànkam Macky Sall da leen na incompétence gaa la amul du samay kàddu Ousmane Sonko mooy wax de vingt-quatre heures yéene kaay ne Ousmane Sonko kay waaw yegg na lu mel ni xamee Macky Sall mi lee direct news de Ousmane Sonko kay defati na mari na way Ousmane Sonko daal moo dul gis lu rafet wala lu baax Ousmane Sonko ci tribune yéene kaay waaw nee na xanaa waar yëngal géeg làmbatu gi Macky Sall gouvernement bi nekkee tergiversation gi lée yow bi ñu amee ñaari cas corona nga tiital sénégalais yëpp tey nag nga bëgg jël sénégalais yi lée bëgg leen weer ni géej exposé leen maître Aliou Sow ci critique yéen waaw nee xam nga ban jamono lañu toll wut ay solution boo bëggee dégg-dégg les défenseurs de la République ci 24 heures yéen kaay waaw nee nañu Ousmane Sonko ci boppam moo war a bàyyi géntam yi lée France dañ kaa génne avion tubaab fukki fan ak juróom-benn ci weeru waaw te la ñuy commencé waa di dem dikk France ak te tàgguwuñ sax gouvernement bu Sénégal bi laa la wax liee mér loo man ba ba mu laajee ministre transport aérien di Alioune Sarr ne ko nan la mën a demee monsieur le ministre ca président ne ko dee kenn informé wu yëguma tinuma Macky Sall ne lii te rafetul c'est inélégant Ousmane Sonko ci Vox nee na gis nga dañoo nekkul ci jamonoy politique dañuy dund fi mu nekk nii ab crise yoo xam ne kon maar day daal yi gudda le témoin yéene kaay ne yu miti yi nga xam ne kon Ousmane Sonko song na leen ko waaw adi cëfaal a ah waaye tontu lu saf li nga xam ne kon moom la leen Mimi Touré tontu ni lée doomu jàngoro ja dee yàq na waxtaan ba jubóobal yàq na consensus ba évidence yéene kaay ne booloo nekk benn ba dee moo mujj corona booloo ba ca boppam moo mujj corona infecté Serigne Mbacké Ndiaye ci les ko yéene kaay am ñoo xam ne dañuy comploté ngir jël place Abdoulaye Diouf Sarr man nag du ministres yi ak directeurs généraux yi ak comité de soutien yu bari yi fi gars yi taxawaloon ci élection présidentielle yi naan nañu jàppale président waar kay ba soobi li nee ca Touba kay Bara Touré rey ñaari doomam yi rey benn muus ñuul bàyyi xeba di mbette sacrifice dëgg la libération yi nekk ane en tout cas Bara Touré de nangu na ne moo rey xale ya allahu akbar laa ilaha illa allah nee na nag xamul lu tax mu def ko te gëm na ne yàlla dana ko baal l'observateur ne waaye coronavirus gi dee ak ndimbal xam ne kon moo jógee nag ci gouvernement bi dee waa ginnaaw raay waaw mer nanu de parce que Xadijatu ji te soixante la jëkkëram daa dee waaw nee na kenn waruma jiitu ci ndimbal li de critères yëpp ngi nii waaye ma dara Ousmane Mbengue de handicapé la wax ak général baax Issa Diop la nee na gi ne xanaa xamoon ne bourse familiale yi lée moo indi yi yëpp ndax délégué de quartier yi lée dañuy na ñoo xam ne dañ leen a bind miti miti miti miti miti miti miti miti miti miti miti miti miti pétrole bi moom buñ ko fàtte rek parce que suul tere xeeñ te troisième mandat dañ ko tere rek boo paree mën Diomaye day ah indi na tasaaroo de mardi daal ah, dama ne la xam ne xel musiba bi nga xam ne nag maanaam kon mën nañoo dal ci jàngoro ji waaw looloo tax nag ba Serigne Babacar Sy Mansour daal di jëlu dogal ne Jumaa nga xam ne nekk ca tiwaa woon googa ah, leen ko tëj zawiya Alaaji Malik bi nga xam ne moo nekk fii ci Ndakaaru Njaay jël Jóob nañ leen ko tëj dama ne la grande mosquée bu Ndakaaru tam ñoom tam nee nañ ko tëj de jumaa ca Ndar ca Tëngéej ca Ngor ak yeneen gox ah, Eh, dañ koo tëj ba léegi nii de tribune yéene kaay ne imaam alaaji Alioune Moussa Samb waaw ginnaaw ba waxtaanee ak grand sëriñ de Dakar te eh, Abdoulaye Matar Diop ak kilifay Lebu yi waaw daal dinañuy woon ak njiital fukki pénc ñaar yëpp ci Ndakaaru Ndiaye jël ak imaamu collectivité Lebu ngir na ñu def attention bàyyi xel nag jumaa yi nga xam ne maanaam kon ñu ngi ba léegi ni lé grande mosquée bu Ndakaaru de ñu ngi ba léegi ni lé waaw waaw réew mi quotidien ne corona ji dee eh, féewale na jumaa yi de dëgg la parce gis nga Tiwaawoon grande mosquée bu Ndakaaru waa Ndar géej waa Paal waaw nee nañu nañ leen te jumaa yi ba léegi ni leen ala wax sur quotidien tëj tëj ji jumaa yeeg église waaw en yàlla moom xam na ay waayam yàgg na Aly Ngouille Ndiaye ci enquête yéene waaw nee ñi nga xam ne dañoo bëgg a ubbiwaat seeni jumaa dee lañ leen di sant daal moo ñu sol ay masque booy benn ñaar raxas seeni loxo ñett sa département Aly Ngouille Ndiaye ne am na coppite boo xam ne am na ca dee aa waaw waaw parce que nag mën ngaa jugee Mbour dem Joal wala Joal caajaay Aly Ngouille Ndiaye ministre intérieur ci réew mi quotidien waaw nee na ñi nga xam ne dañoo bëgg a dem korite ji ñi bëgg a dem korite ji waaw mën na ñoo ñaan ndigal maanaam demander autorisation critique yéene kaay de tey covid 19 ci lé sa boqul ma ko indi na am pëcc xoo di jaxasoo de l'observateur ne xoolal ma école yi nga xam ne kon président Macky le 2 yaraax dugal leen ca biir gémmiñu corona cay njuuma la corona direct news de corona joojay day waaw ak président Macky Sall ni mu doxalee na nooy assouplissement di couvre-feu waaw Macky mi leen mbaadu daa daw deuxième El Hadji Amidou ci laas ne déedéet mbir mi stratégie la teew mesure banque fa ba léegi ni la vingt et une heures cinq heures waaw booy benn ñaar mais gouverner aussi c'est être à l'écoute de sa société dëgg la jiite it sa benn nopp ci askan wax Alioune Fall conseiller président réew mi dund Samuel Sarr ci libération yéen kaay waaw ne ay waaye ana ñan ñooy xelal Ousmane Sonko nañ ko wax na noppi ndax noppi rek wax la Aminata Touré mimi ci direct news waaw nee dañoo tolluwul ci jamono yi werante politique politicienne yéen gi ne askanu ci boppam day mujj gi dañoo dem ba mujj fippu laa la wax waaw waaw parce que koom-koom gi koom-koom gi nit ñi dañoo mujj sonn source aané en tout cas suñu gaal gi dee ma ngay suux ca biir foos ba de mardi tali waaw parce fukk ak ñetteelu ñu bees ñu am jàngoro ji Sénégal dama ne la am na juróom benn kaay garaaw lu tolloo junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñett ci ay nit yoo xam ne dé ñu ngi leen di faj allahu akbar Mohamed Samb ci évidence Sénégal waaw nee na adduna bi yëpp ñoo rafetlu liggéeyu Abdoulaye Diouf Sarr aa Mohamed Samb ne waaw looloo tax nag may sàkk ci waa kër docteur ñu continuer boos ci ginnaawam rek terminé yéene kaay ne en tout cas Dakar ak Touba ji dee fii la gën a bëree laa la wax war ko ndomba ba léegi ne la dee terminé yéene kaay ne maa jigéen maa ngara dee waaw ma ngay jàppale nag gi nga dund googee aide waaw am na ay lëndëm lëndëm yu ci am de bu gouvernement bi maa la wax lii parce que yi lée daa manqué de ndekete mbir mi amul suukar amul diwlin maar di Italie dali foor moom musiba mbaa bokkumba bourse familiale yi la fa am amul fenn ndimbal nii président Macky Sall indi ceeb bi nag ak diw ji moo feeñal tojaa ngi am ci biir bourse yi Idrissa Diallo de di meeru warum sach scandale bordel boo xam ni kon moo ca am maar di Italie yow imaginel ma ay délégué bind say doom bind say goro ngay gisaat ay salarié ak seen jabar ñëpp ñu bind leen ca jamono joo am na ñoo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw waa lii luy ndeem Idrissa Diallo maire Dalifort ne gis nga bourse familiale yi lée waaw tribunal lañ war a yóbbu lii enquête ko côté justice parce que toojaange di scandale bu gën a ngand bi ci nguuru Macky gi amul tribune yéene kaay waa kër docteur yi nga xam ne kon jàngoro leen di dugg rek ñu leen di wàll waaw gratuitement vox sobri ne borom kër yi nga xam ne daal ay nitu fi ne waaw am na ay soxna yoo xam ne dee tëju bii ñu tëju ni lée ñu leen di ray de di leen dóor rek madame Diop waaw nee na am na guddi xam ne dee ca xar yàllaa fanaan madame Dieng waaw ne la war a lekk dee daa de waaye ba ma ba ma xëy ca laa daanu sama taxa njar gi daal di damm libération yi ne kaay ne en section de recherche de waaw am na ñuñ daaneel de ci ay yu baaxul diggante région ak région xoolal ma directeur société bi Cheikh Sadibou Diop de nee na yéen ñi abonné Sénélec nag bu yóbboo ngeen jóg parce que nag Sénélec ma lan moo ko dugal ci lii yow am na fi ñoo xam ne maanaam ñoom ñooy defar ay compteur waaw ak i lay defarul compteur dafa naarul nga koy jox ab contrat boo xam ne cent quatre-vingt-sept milliards la ilaha illallah Cheikh Sadibou Diop ne ak i lay amu ci benn expérience Cheikh Sadibou Diop ne yow daan nga defal sa bopp tey nga ñëw nag boole ca leneen pour wutal kan xaalis termine yéene kaay ne club des investisseurs waaw ña ngay jàppale ak de aha ñoom Baba Ngom waaw lu tax club des investisseurs waaw nee dëkk bi doomu dëkk bi préférence nationale aha waaw Baba Ngom ak ñama àndal day nee neen mi kon dañoo war a kontaan ci plateforme bi lée nga xam ne danañu ñu tamit suñuy dépense waaye tamit suñu doom yi bi tuumaal nañ président Macky Sall de ne moo doon dawal gaal gi de dem ba ca digg ndox ma muy taw ak ngelaw lu bari Macky Sall jëppeelu ba tax na nag Babacar Diop ak ña ma àndal de di waa FDS waaw nee nañu Macky Sall démission bii nga xam ne démissionné na ko na ko dëggal rek matérialiser ko ñaanal leen teg askan wi la daal di dem <laughs>